mënuma particulariser wu di di nommer di nii sama doom parce que ñoom ñëpp ce sont mes enfants parce que j'ai la chance aussi que ces jeunes là qui sont aujourd'hui en équipe nationale de Cheikhou Kouyaté à Idrissa Gana Gueye à Sadio Mané ñoom ñëpp ñoom ñëpp man j'ai la chance de les encadrer en équipe nationale avec les sélections jeunes donc ça veut dire que man je me rappelle on a fait un tournoi en 2009 2009 et c'est pas aujourd'hui donc Gana il était le capitaine des U20 ma yoroon ko équipe nationale donc ça veut dire que man xëy na pab lañ identifié que sama doom la mais man ñoom ñëpp dama leen di considérer comme mes enfants man benn souhait rek laa la mën a souhaiter que yàlla may Sénégal ndam man loolu rek laay ñaan. non moom moi je le laisse naturellement vivre évoluer ni muy ni mu am évolution il est dans un groupe bu xam ni. mi ngi mi ngi muulewu ci groupe bi mi ngi forgé wu ci groupe bi je pense que nañ ko nañ ko ñaanal rek yàlla may ko wér ak kattan boo xam ni espoir bi sénégalais yi yaakaar si ñoom ñëpp muy les vingt huit jours yi dem ci tournoi bi que mu bañ tas. ça fait cinq ans le Sénégal mooy top meilleur Afrique xëy na kay chance su gagné coupe la amagul mais sur le papier je pense que quand il soo xoolee da nga xool ak suñ colonne vertébrale équipe bi. tu as un gardien qui est parmi les meilleurs au monde nga am un Kalidou Koulibaly qui est qui à son poste il est le meilleur un Cheikhou Kouyaté un Idrissa Gana Gueye qui sont des joueurs de calibre je dis mondial tu as Sadio Mané tu as Famara Diédhiou Ismaïla sar c'est le rêve de tout entraîneur d'avoir cette ossature là donc ñun ñu Sénégal ñu am ko nañu na ngeen ñaanal rek moi je pense que ñun y a que nos prières qui peuvent les accompagner pour que ñu réussir cette mission cette mission c'est comme ni ma a wax on a perdu deux finales je pense que troisième bi war nañ mën a def tous les moyens pour indil ñu ko suñu dëkk. comme ni ko waaye man ko uti ndam moo fi nekk. bi ma dégloo discours u entraîneur bi bi mu waxee ma déglu aussi discours capitaine bi Kalidou Koulibaly donc nga xam ni ñii xam nañ li leen di xaar. beneen aspect bi ci ëpp importance. mooy euh, mooy le coach il a une expérience ak loo ko mën a reprocher il a une expérience des grands rendez parce que en tant que joueur et capitaine d'une équipe il a participé à une finale de coupe d'Afrique il a participé encore en 2019 à une finale de coupe d'Afrique bi c'est sa troisième je pense que il est assez mature et outillé pour xam ban stratégie la war a mettre en place pour que tout le rêve des Sénégalais yàlla may ñun ndam pour match tey bi